kon mi ngi nuyu kilifa diine yëpp bàyyiwut benn tarixa nag waaye day mel ne kon bu tànnee sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xam ne mooy alxalifatul am di tarixati tijaniya tudd ko ci tuddaali nag këri diine yëpp bàyyiwut kenn muy suñu mbokk yu tedd yi nekk Kawlax di njabootu alhaji Abdullahi maam Abdoulaye Dias ak di waa suñu bokk waa Njaasaan ak njabootu Cheikh Omarou Fouti yi ba ci njabootu Laayeen ba ci suñu mbokk waa Canaba bàyyiwuñ kenn ndax boo xasee lim sax dangay ngay li wala fi di wax naan ku lim fàtte waaye kon buñ ci tuddee suñu Babacar Sy Mansour ala raasihim tuddaale nañ ñëpp di ko santit bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne waxtu ne mi ngi koy yëkkati ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci rafetal ngir bëgg lu gën a dëgëral bokk gi ak lu gën a dëgëral diine ji kon sëriñ baa ngi koy sant moom itam di ko gërëm di gërëmit ki kilifa diine yépp ci seen taxawaay ci réew mi ak ci seen taxawaay ci musiba mi suñu borom wàccee ci kaw suuf muy mbas mi moom moom yi mënees na ci wane taxawaayam ndax àdduna sépp xam nañ itte ji mu ko jox ak taxawaay bi mu ko jox kon ñu ngi koy ñaanal mission bi nga xam ne doon na ko ci ay magam doon na ko ci ay waajuram doon ko ci maamam yàlla dimbali ko ci mu àggale ko ba lépp ni mu ko yéenee ndax daaw nag daaw sëriñ bi yónni na fu mu wax kàddu yu rafet mu wax ne waxal Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ko na xam ne gépp kàddu gum dégg te méngoowut ak kàddu gu rafet bàyyi fii bu fi tuddoo woon bokku ci njawut gi te xam naa ne li am fii mu am foofa loolu waxu ko yam ci waaye mi ngi koy jëfe